أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ba tey ci xisasul ambiya ñu tolloon ci nabillahi daawud alayhi salaam tey noo ngi jël benn parti ci dundam fi ko sunu boroom subhaanahu wa taala di waxee wa sadatna mulka boroom bi tabaraka wa taala mu ne wa sadatna mulkahu wa aataynaahu alxikma wa fasla alxitaab daawuda alayhi salaatu wasalaam sunu borom subhanahu wa taala moo ne moo dëgëral nguuram laqad jaala allahu mulkahu qawiyan sunu borom moo ko may nguur waaye bam ko ko mayee da ko koo dëgëralal nguur mi ngi dëgëre ci ñaari mbir ci militaire ak arme moo tax mu ne yàlla moo dëgëral nguuram bi kasaratil adadi wal udadi yàlla kattanal nguuru daawud may ko ay soldaar yu ne gàññ waaye boole kook ngànnaay yu mat sëkk waaye waa maddahu bi nasri wa taayid yàlla dimbale ko combat bu mu takk rek daal di koy gañe yàlla kàttanal ko xare yépp moom daawuda def ci am ndam wa jaalahu mansuur borom bi def ko ku ñu dimbali fu mu dem rek ndam lay am ci ay noonam même noon yi sax dañoo dem ba ragal ko ci waxtu jàmm ak ci waxtu xare ku dégg turam rek sa xel ak sa xol di tëf tëfi amul kenn ku ko ñemee ci waxtu yépp nag moo tax mu ne hatta an adaahu kaanu yaxaafuuna minhu fi waqti alxarbi bal wa fi waqti silmi jamono yépp noonam yi dañ ko ragal ndax kàttan gi ko yàlla may ak ndimbal gi ko yàlla dimbalee moo tax lépp lu doom aadama am ci àdduna su ci ndimbal yàlla nekkulee loolu du am njëriñ bu dee nguur bu dee alal lu mu mën a doon su ci loxo yàlla teggee ko loolu dootul amati benn njëriñ dootul amati benn valeur amma Daawud bi ko yàlla joxee nguur yàlla may ko defal ko kattan yàlla def ko defoon ndimbal ba pare yàlla teg loxoom ci nguuram gi yàlla def ko mu nekk koo xam ne fu mu dem day am ndam yàlla dugal tiitaange ci xolu noonam yi ba ñu ragal ko ci waxtu yu nekk ci waxtu xare ak ci waxtu jàmm mu ne wa fawqa zalika faqad aataahu llahu jalla wala alxikma loolu yépp nag li muy nekk ay taraanga yépp yàlla defal na daawuda taraanga bu ëpp loolu mooy lan an nubuwata wal kalaami tayyib yàlla may na ko mu nekk ab yonent ndomba tànk yépp ci àdduna yu nit di am nekk yonent moo ci gën ndomba tànk yi nit di takk ci àdduna taraanga yi ko yàlla di may benn ëpp ci yàlla tànn ab jaam def ko yonent ndax nit ñëpp yonent yee ci gën nit ñëpp laa wax yonent yi ñoo ci gën kon ku yàlla daane def la bi yonent yow yàlla desalatu la dara waaye yàlla may ko baat bi neex kalaamu tayyib muy wax wax ju baax fu mu toll yàlla may ko mu incarné ci boppam jikko yu rafet makaarim al axlaaq wal aadab mu am ay teggin am jikko yu rafet moom daawud xam nga ne nekk benn yonent rek doy na ab yonent kenn du xalaat ci moom jikko yu ñaaw waaye rawatina nag ba ko yàlla defee bi yonent ba pare yàlla àmbale ko moom daawuda laxase ko ay jikko yu rafet ak ay teggin mu ne wa kazalika ataahu fasla alxitaab naka noonu la ko yàlla maye woon mën a atte mu nekk buur yaa daawud inna jaalnaaka xalifatan fi l ard fahkum bayna annaas bilxaq sunu borom jalla jalaalu moo ne ko yow daawud man yàlla de maa la tànn def la nga nekk attekat ma def la xalifa ci kaw suuf ma def la nga nekk attekat na nga atteeg nit ñi ci dëgg na nga atte nit ñi ci dëgg moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne attekat yi ñett lañ ñaar ñi safara lañ jëm loolu moom attekatu Sénégal yi bu ñu ko déggee war nañoo tiit ndax xam ngeen ne Sénégal moom justice bi nit ñaa ngi koy jooy waaw nit ñaa ngi koy jooy guddeeg bëccëg kon képp ku yàlla nattu nga nekk attekat te nekk ci réew mi yow nga xoolaat sa bopp balaa ngay dem ëllëg ci kanamu yàlla yowmal qiyaamati nga yëg ne atte boo atte rek di nga ko attewaat ndax yàlla moo ko wax alaysa allahu bi ahkamil hakimin ndax atte mbirum yàlla la inil hukmu illa lillah loola tax sax yenn borom xam-xam yi di wax ne tawxiid dañoo wàññi benn xaaj bi nekkul ñett ñeent la biñ leen laajee lan mooy ñeenteel dañu ne tawxiidul xaakimiya ndax atte yàllaa ko moom kon dañ ko cee war a wéetal kenn warul bokkaale yàlla ci atte mu ne yàlla may na loolu daawud wa kazalika aataahu fasla alxitaab yàlla may ko mu mën a atte wa kaana yastatiu an yumayiza bayna alxaq walbatil waaw attekat bokk na ci li ko yàlla di dimbalee mu mun a atte xàmmee ràññee dëgg ak fen mu def attention bu baax benn buur dafa toog rek benn jigéen ñëw di ko jàmbat ay aajoom ci ay mbokkam bay jooy rek mu ne dem leen ngeen indi ji mbokkam yi ngeen duma leen am na benn ku xereñ ku yàlla mayoon ku am xam-xam ku toogoon foofu ne ko waaw lan moo tax ñooñu ñu leen di indi di leen duma mu ne gisoon ndaw si dafa wax bay jooy ndax lu metti liñ ko def mu ne ko buur mu ne mu ne ko mbokk yuusuf ya defoon nañ tooxi doon a toog seen kanamu bàyyi jooy nekkul ku jooy rek yaa yor dëgg ñooñu defoon nañ seen tooxi doona alxuraan dañu nettali ñu ñëw ci seen ci ngoon ca seen baay di lan di jooy kon nekkul ne ku jooy rek yaa yor dëgg su fekkee ne da ngay àtte waroo am sentiment da ngaa war a gëstu da ngaa war a xam dëgg daawud yàlla mayoon na ko mu mën a ràññee diggante dëgg ak fen wa kazalika kaana yaqdi bayna annaas wa yaxkumu baynahum bil adli naka noonu moom daawud daana atte diggante nit ñi ci lan bil adli ci maandute la doon atte moo tax kuy atte bu yeboo nga maandu bu yeboo nga def yàlla rek sa kanam nga xam ne digga dee yaa ki nga doon atte ak ñi nga doon atte di ngeen dee yéen ñetti groupe yëpp taxaw ci kanamu yàlla ki nga jox dëgg ki nga jox tooñ ak yow mi doon àtte ak seede yéen ñëpp di ngeen taxaw ci kanamu yàlla ëllëg moo tax bu kenn bu kenn mettitlu luñ la teg bu dee tooñ bu kenn mettitlu sa àq bu ñu jël ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina la ko delloo sikk nekku ci yàlla mooy buur bu maandu ba fii ci àddina lépp luñ la tooñ sunu borom subhanahu wa taala dana taxawal ñi la tooñ delloo la dëgg gi te foofu lay neexe nag waaw loolu xale yi naan su boobaa doom dina neex ndeyam foofu la doom di neexe ndeyam ndax yaa ki doon àtte cundu ngeen def ci kanamu yàlla foofu moom yàlla rek moo fay àtte wax na ko inil hukmu illa lillah wallahi àttekat keroog yàlla kese la keroog ñëpp waaw foofu nañ naan foofu la mbax ne nekkee benn foofu la mbax ne di nekkee benn mu ngoog moom daawud alayhi salaam sunu borom jalla jalaaluhu xiirtaloon na ko ci dafa jëloon waxtoom lenn ci waxtu yi mu xaaj ko kaana yuxassis baadu waqtihi li tasarrufi fi su'unil mulk dafa jël lenn ci waxtu yi ko yàlla may mu jagleel ko nguur gi jagleel ko àtte diggante nit ñi mu jëlaat lenn ci ay waxtoom muy wéet ak boroomam ta jalla jalaaluhu gis nga moo tax doomu aadama rawatina ab jullit sa dund yëpp warul nekk rek ci utub alal warul nekk rek ci liggéey warul nekk rek ci bànneex il faut nga jagleel waxtu yàlla foog nga am loo jagleel yàlla ci say waxtu mais xoolal tey àddina bi nit ñi daanaka ay desit la ñuy jox yàlla ay desit desiti waxtu te doomu aadama boo génnee yàlla ci sa dund sa dund dootul jag nit foog mu xaaj dundam lenn li mu jox ko boroomam lenn li mu jox ko boppam lenn li mu jox ko liggéeyukaayam wala ay mbokkam bu leen fàtte Omar ibnul Xattaab ziyaara ji na amir bu mu faloon ab gouverneur bi mu ñëwee waa dëkk ba dajaloo ci moom Omar laaj leen ne leen waa yéen mbaa ki ma fi indi moom mbaa ki ma fi teg mbaa mu ngi leen di toppatoo mbaa mu ngi leen di nemmeeku lu ngeen xam ci moom gaa yi ne ko daal waa ji dal ku baax la waaye ñun dañoo jaaxle ci ay mbiram Omar na lu leen jaaxal ne moom daal alxamis kenn du ko gis mu ne ah ñu ne waaw mu ne beneen day jékki-jékki rek xëm ñun duñu xam lu ko xam loo est-ce que moom wér na normal na Omar ne ak lan ñu ne bu sëlmalee rek départ kenn doot ko gis bu jullee bu sëlmalee rek départ na ah Omar ne comme da ngeen a sikk sàkk ci moom ay mbir te nekku fi te yéen la jiite kon bàyyi leen ñu wooy ko ñu wooy saxaaba bi mu ñëw toog Omar ne ko yow gaa yi nee nañ dey ku baax nga waaye ñetti mbir daal moo leen jaaxal ci yow mu ne bi ci njëkk yow kenn du la gis alxamis mu ne waaw lu tax mu ne benn yére laa am dama koy fóot alxamis ndax àjjuma mu set ma mën koo jiite ci kanamu nit ñi moo tax alxamis du ma génn ndax dañ koy fóot suñ ko fóotee du ma am lu ma sol mar ne ko gars yi nee nañ boo jullee rek da ngay dem doo toog mu ne waaw lu tax ne damay dimbali ji sama soxna ndax awma lu ma jëlee mbindaan awma lu ma ko fayee moo koy dimbali ji ci liggéey kër gi moo tax mësal ma lay rek dem dimbali ko muy defar ndékki may toppatoo xale yi wala mu toppatoo xale yi ma defar ndékki Omar ne ko am na beneen bu ñu wax de mu ne lan la da ngay jékki-jékki rek xëm lu waral loolu mu ne dama fekke woon ba ma nekkee yéeféer ca Makka dama fàkkoon yéeféer yi Makka jàpp ko tudd Xubayb ñu koy rey waaye balaa ñu koy rey bi ñu ko yóbbee ba ci àll bi bi ñu ko jàppee dañ ko jàpp ñu mel ne ku jàpp kaña dañ koo tingoom waa dëkk bi topp kook seeni yat ñu jiital ko ba ci digg àll ba ñu ne ko dañ lay rey mu ne waaw loo bëgg mu ne ngeen may ma rek ma julli ñaari ràkk après bu ngeen pare lu leen neex def leen nee na man boobu maa ngi taxaw di xool waa ji préparé jàpp julli ñaari ràkk yoo xam ne ni mu rafete musuma ko gis ci àdduna mu ne ñu pare ñu jàpp ko di ko daggate dagg nopp yi wala ñu rey ko benn yoon de dañ ko doon daggate dagg bakkan yi dagg tuñ yi ñuy dagg par cër par baaraam xam nga dee boobu moo gën a métti ci dee ñu naan ko ndax bëgg nga Muhammad nekk sa place mu naan Muhammad a nga Médine bëgguma dëgg jëm dàllam mu ne bu ma xalaatee image boobu te man mënoon naa koo sauver su ma xalaatee loolu rek sama sama bakkan sama yaram moo ko dul mun a muñ ma damay xëm mu ne looloo tax may xëm Omar daan ne mbokk ya waa ji da ngeen doon tuumaal dégg ngeen li mu wax ndax doy na leen ñu ne doy nañu kon nit foog ci dundam am lu mu jagleel boroomam foog mu am waxtu yu muy wéet sa soxna sax am nga waxtu yooyu wéet ak moom walla ah sa patron am nga waxtu yooyu wéet ak moom walla sa doom yenn saa yi nga am waxtu woo wéet ak ñoom sa xarit yenn saa yi nga am waxtu woo wéet ak ñoom kon yàlla il faut ñu am waxtu wu ñuy wéet ak moom waxtu woo xam ne yàlla rek keneen bokkul yàlla kese da ngeen yaay Aysa nee na yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu toogoon ak ñun di wax di ree di kaf ak nun pour nu bég pour bégal nu bu déggoon julli jot dootuñu xamati bu julli jotoon dootuñu xamati day mel ne ku nu xamatul mooy wéet ak borom bi jot na kon Daawud dafa amoon waxtu yoo xam ne danaan wéet ak boroomam wéetaay boo xam ne pour jaamu yàlla la lil ibaada wa tartiil ak jàng zabuur wayam baatam yu neex yooyu nga xam ne moom la daan def tasbiix yooyu nga xam ne moom la daan def ba nga xam ne montagne yeeg garab yeeg njanaaw yi dañuy ànd ak moom ci loolu muy def ci mihraab la ko daan defee ci jàkkaam wa kaana ida daxala almihraab lil ibaada wal xulwa lam yadxul ilayhi ahad su génne woon këram ba dugg ci mihraabam ba tëju kenn dootu ko fa fekk dootul soxlawoo kenn wala lenn hatta yaxruju huwa ila nnaas ba moom mu génn dem ci nit ñi waaye nekkul la nit ñay génn ñëw ci moom hatta yaxruju huwa ila nnaas ba moom mu génn jëm ci nit ñi yàlla dong moo koy ñor yàlla lay occupé wu ba génnam jot mu daal di génn dellu ca nit ñi beneen tomb bi mooy wa daawuda wa suleyman is yaxkumaani fil xars xam ngeen ne daawuda yàlla mayoon na ko domb tudd suleyman daawud mooy bàyyi suleyman moom yonent la doomam nekk yonent comme yusuf yusuf yonent la baayam yonent la maamam yonent la mamaat yonent la allahu akbar loolu tamit yàlla may na ko daawud mu nekk yonent doomam nekk yonent mu ne benn bis daawud a daan toog di atte comme moom attekat la woon kaana daawud alayhi salaam yajlis bayna annaas mu toog ci diggante nit ñi fa yuzakkiruhum billah mu leen di waar di leen fàttali yàlla mu leen di régleel seeni problème muy àtte seen diggante muy defar diggante yi yàqu muy jubale ñi meroo muy defar ñi xuloo loolu moo daan loolu moo daan su génneen toog loolu lay def ci kanamu nit ñi di leen fàttali yàlla di leen delloo ci borom bi di leen waar ay nit ñëw mu àtte ay nit yu xuloo ñëw mu jubale ay nit yu réeroo ñëw mu defar leen nee na benn bis mu toog rek jaahu baadu nnaas lenn ci ay nit ñëw ku mo ñëw ci moom li yaxkuma baynahum fii xusuuma xadasa baynahum mu toog rek ay nit ñëw yu jàppante yu xuloo ñëw ne ko dañoo ñëw pour nga atte ñu fa taalaw bina li nara kayfa qada fiha nabiyullahi daawud alayhi salaam nu ànd nun népp ñëw fekkee xuloo bi réeroo bi atte bi naka la ko daawuda defee diggante ñii ñëw ne ko dañoo am problème suñu diggante bëgg nga atte ñu jamono yooyu Suleymaan mi ngi nekk xale toog ci wetu daawud ñi ñëw sàmmkat la boroomi jur ak borom tool dafa am ñoo xam ne dañoo am seen tool ñu bàyyi tool bi ba tool bi ñor toll ci waxtu góob mooy dindi la ñu jiwoon ñu góob ko borom xar yi bàyyi ba guddi allahu alam xar yi rëcc wala dañ leen a tekki xar yi dem nañ dugg ca tool ba te ànduñook sàmm sàmm bi ànduñook kenn xam ngeen ne ay xar wala ay jur yu dugg ci tool xam ngeen nu ñuy def tool bi waajee toog xam na ci dara hmm? ay gàtt jur yu dugg ci toolu jàmbur fekk ñu fa kenn ànduñoo kenn xam ngeen nu ñuy def tool bi jur yi daal di raatale tool bi ba tool ba set borom tool bi bi mu yeewoo mu jubal ci daawud daal di ko koy informé ne ko man de dama bay sama tool sonn ci torop ruuj lakk rato mu taw ma ji topp di defar di garde bay tool bi sax yëf yi meññ daal di naat bés bu nekk may xëy di dugg ci tool bi di defar yëf yi di màgg di ñor ba ma yaakaar dara desul lu dul ma dem ànd ak sama njaboot jàpp bis bu ñu ko góob benn waaye daal di bàyyi juróom jur yi ñëw dugg ci tool bi yàq sama tool daaw da ne ko ndax xam nga borom tool bi mu ne xam naa ko kay ñu dem jëli borom tool bi mu ñëw ñu ne ko waa ji de dafa am lu mu wax lan la wax yow yaa bàyyi sa jur mu ñëw dugg ci toolam yàq ko mu ne dëgg la kay sama jur ñëw dugg ci toolam yàq dëgg la mbokk yi fii tool waa ji bàyyi ay juram ñu dugg ci tool waa ji yàq ko dañuy arrêté dars bi incha allah ba àllarba bii di ñëw ñoon yàlla mu defal ñu tawfiix may ñu fekke ñu eggali ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh